été reçu par le directeur du Trésor euh, présence du directeur général de la SONAGED. démb rek directeur bu Trésor dalaloon nañu ci teewaayu directeur général bu SONAGED ci bu ñuy jeexal waxtaan yi nag defoon nañ ay proposition ngir mën saafara jafe-jafe bi ci ni mu gën a gaawee jëloon nañ itam ay engagement ngir tàmbali fay xaalis bi nga xam ne jamono ji mu ngi fii ci loolu directeur général bu SONAGED moom itam jël na beneen engagement wax ni dina def lépp lu mu mën ngir ñu mën a fay beneen pàcc bi nga xam ne moo des ci bor bi fu mu toll nii nag amul lenn loo xam ne gàllankoor na liggéey bi dinañ ko tàmbali fépp ci réew mi. pour régulariser l'autre partie de la dette ce qui a été fait donc du coup il y a plus de restrictions le travail va redémarrer normalement sur toute l'étendue du territoire national.